صلاة الذي في كل سهر وفي سفر حماني على ماهن مع الحس والسفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi ziar ñëpp ñi fi nekk 18 سفر بس bu sell bi fii ci kër Cheikh Mouhamadou Falilou Mourtala Mbacke di nekk fii ci kër Soxna Mame Maram Mbacke Souaïbou di nekk fii ci euh, kër euh, maanaam euh, Serigne Mouhamadou Aras Mbacke mooy doomamu ku mu doon tudd sànq nii ñu ziar ñëpp ci bis bu tëdd bi rus nañu jël kàddu bi ginnaaw sëñ bi waaye yàlla def naa ne ab ndigal la ci ñun moo tax leen jëme rek incha allah yalla def naa ne tey bis bu ñu yegg fi moy 18 safar euh 18 safar moy lan moy bis seigne touba dañ dem ci ay naatu seigne touba moom def bogon ñu ñu màggal bis bi amna ñu bari bu ñu am lu rafet wal bu ñu am lu lu neex dinañ fexe euh, ñu màggal ko waaye sëñ bi moom lu mu digle ñu màggal ko mooy bisu euh, coon bisu naatu lii moom lu mat euh, xalaat daal lan mooy bis bi bis bi mooy bisu sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala bis bi mooy bis bu sant yonent bi sallallahu alayhi wa bis bi mooy di sant Xadim Rasulallah te boo déggee bu baax lu mu doon wax sànq nii maa ngi tudd Xadim Rasulallah te ñetti baat muy tënk lu mu doon wax sànq mooy yàlla sunu borom subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Xadimul Mustafa lan mooy tax bis bi am importance boo xoolee bu baax a baax a baax ku mos a jàng alxuraan soit mu arabe, arab soit mu jël traduction Dinogis gis al khoran, Le bari jihad lan moi jihad jihad beaucoup arab firi effort Madame gor góorgóorlu waaye ti ayat al que le wax Madame se ak noonu l'islam Madame l'islam moi yoonu nous Mu yoni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax sarti lu ñu war a def ak lu ñu war a texe te am na ku ko bañ te yàlla sunu borom mu digle doomu adama mu digle junit ñi ñu dem xeer ak ñi bañ l'islam te lii lu alxuraan mi ngi fi ba tey kan lan moo tax bis 18 safar mu nekk bis bu rëy ci ñun ndax Cheikhul Xadim ba mu gisoon

société bi di defar affaire yi man mii maa ngi dem jihad Cheikhul Khadim moom kese indiwul ay taalibe indiwul ay nit moom mi Cheikhul Khadim 1 mètre 60 32 kilos man mos na dem bayti di laal bagage sëñ bi amoon na jamono gën a woyof léegi yamoon na ubbil di laal bagage sëñ bi ba ma gis daal sëñ bi may jooy ndax mel naa ne ma gis benn daayu daalu jànq

midemna nibisin. Ken mm, amutul manam euh, euh, euh, intérêt, quel amutul sorle, didiel diasi ou le fetal legi. C'est visionnaire, ndar bokhale boubar. New Inek Fiti 2019, depuis 1945 Raomo, Kher, nekutulti diasi ou fetal. Kan moi kanmoi construire kanmoi, kanmoi def fetal ay ah, chinois légui allemand français américain canadien ak euh, wow, anglais madame est-ce que euh, ñoo ñu ay julit lañu déedéet kon yow yaa ngi bëgg a l'islam jël sa halal joxe sa noonu l'islam pour jël ay ay fetal lii amul amul ben sens sëñ bi visionnaire la te yàlla suñu borom fait beaucoup ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu tour deret بنن ديامونو لنينك ديامونو خام خام ديامونو حكمة ديامونو خامنتي ديامونو ديابلانتي لي موي موريديسم لان موي موريديسم موي الإسلام حمد الإسلام داي أفانسي القرآن دوم آدم بومو جانجي القرآن دينا ديكوفرير لو عندك ديامونو لو لو تاني نيك تي ديامونو بوبو ديامونو خدمة توبة لأبدين مريد صادق له بخدمة أو بحب أو هدية lan c'est cité Touba madame mu wax Madame yi madame ñi Denuam dañu am Touba dañu bonheur Denuam félicité Denuam am Ndar Denu dañu Gorialai, Quand moi kan moi ni yàllaay mooy héritier wu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Touba moo 711 cher. te ñoom ku top. بخدمة أنا مدي ليجي أو بحب أكخل بوسات ديلان بوك نار بوك جيس ونيو ينتو بسو سلام موي كلن جيس ديلان بوك من لاني بوك بوكنا ينتو بسو سلام بخدمة أو بحب أو هادية لان مودس بجنان قديور سنياق قديور سخول لنبل سبوش قديور كونيت نيو باركلو نيو ديف سوسيتي بي بخولي مساليك الجنان بنيو دون سنش ياقول نون misaal sama imam maam don doon nit ku ñuul di leen yónnee Afrique euh, Amérique di leen def ay jam ñeent téméré at ensuite ñu def ti colonisation waye di leen joxe di leen bëgg joré Ben culture te dul seen culture mais xoolal bu baax nit ku ñuul actuellement amatul repère France dañu am Tour Eiffel dañu am Arc de Triomphe dañu am ay ñeneen Reobunetu Tituba Bidenu Amsenki. Ouais, c'est une tuba, le Moudef. Mou yar nit nibo sotum mou sench masalik jinanti bir Dakar. ginau Djumal. Djuma sunu culture nun julit. Manen nun narman. Manenek ab sénégalais là, itam. Ouais, itam ben monument, ben, ben signal pour xamne pour nit ki xam que man may bok ti ben rew amna ben repère amna ça m'a fait défendre Dara. C'est de Donc, ce nous avons fait, c'est que nous avons fait des Nous Nous Nous Nous سنبرو نيني خلقنا الإنسان في كبد لما بند أدوماتي أي جون كان لو سين بيدو نوار ننيو تيبان الديمونسيون دي دي ديال أدونا دي دفر أدونا ندخ كل غادي موني ينور الليغي ملناني دولن فاتو موك وينور جولي ملناني ينور فاتو فيك دو سكوند إن شاء الله لي موي ماغالكي أبيارل ci ñun ñëpp ab soññ la kon man mënuma soññ it ni ginnaaw kàddu sëñ bi waaye maa ngi nii di wax ak yéen seen mbokk la ñëpp xool ma man ku ku xool bu baax xam na fan la jóge bien vrai que am na ñaar euh, ñaar fukki at juróom fii si yoon bi yàlla xam na ni yarun ma si waaye may soñ képp

gën sant yonent bi sallallahu alayhi ndax moom rekk fi nekk moom rekk fi nekk sunu borom dafa bind àdduma ndax ak ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon boo xoolee bu baax lépp mbindef dafa bëgg nekk doom adama yow nag gilem pepp suuf garab bu ñu señoon ñu nekk jaar si benn e biiru soxna nek doomu aadama kon ñun yàlla def na ni dunu ñu nakk yow ay dom adama lenyo ñu ginnaaw loolu yàlla def na ni ñun nit kese dunu dom adama kese te yàlla wax na wala xad karam na bani adama Yeketina na xeetu yonent eh, bi aadama eh, alayhi salaam way ñun ab lenyo de dañu gem li lu rëy lu mat fonk ginaaw dañu nek نيجم دنيونك نيجم محمد صلى الله عليه وسلم جنجي مندف أمول كن كوغنتي خطو ينات تي ينات مغنو نيب واي محمد صلى الله عليه وسلم مغنو نيب جينا أولو ليا دفنا نينيوم أب موريت لينيو ملاني دي نيو جن أسنا الخديم شير الخديم تي ان أي خيسلو لير سين بموني بيس بنشم يلا سنو بروم دين ديال mbooloo yëpp di woo ne yonent bi salaam di am ngeen yonoon bu mel kooku kenn mënu tontu ndax kenn amul yonoon bu mel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu soññi leen di gën a nekk ci lislaam waaye ginnaaw loolu yonent bi salaam ti bi jaay borom bi dina ekkati xaadimul Mustafa ci kanamu yonent ñëpp di wax ngax yéen am ngeen xaadim ku leen budul koko bu dul kooku kon ñun dañu war a sant suñu borom bàyyi caaxaan bolé boole xol magal gi ak tohid le kessé lu tohid yàlla kenn la mu ne bind naa ci ben ben ki kessé kon ñu dañu war a boole suñu lépp bàyyi suñu rek te bu ñu bàyyi gi gën nekk taalibe inshallah amna laaj bo xam ne bu ma la ko laajul da naka ñi ñi sétane bu mbokk internet yi dina leen dina leen xawa umpu moy nak nga def ba doon mourid fo jaar ak sëñ bi ba tay nga yegg fi nga yegg alhamdullilah li mom lu mat laaj waye ñaari tontu leen mëna def. ben bi mooy asbunallahu wa ni'mal wakil def mo dara ndax ab taalibe ab tànneef la. te xool boo xoolee bu baax suñu borom ñeent la doon bind ci doomu adama bu ne ba mu euh, nekk ci biiru yaayam mu bind ñeent mooy lan mooy li nga war a xam euh, sa caractère naka nga war a mel ak euh, sa sa sa femme ak lan ndax dina dem aljana wala safara kon lii moom suñu borom moo ko bindee te ji bi jamono bii Sëñ Tuubaa war lu leer de bien vrai qu'amne nu yarmandé ak ñep de nu yene lu rafet ci ñep waye yont euh, cheikhul khadim mo ne ku wara dem euh, aljanna ab julit la kesse kon yan ñu yan gëna xir euh, mbolo ci l'islam donc premier tonton moy asbunallah wa ni'mal wakil c'est mon borom rek la doon la wara sant defuma dara dama doon top sama destin rek waye ginaaw lolo Euh, man bu ma doon ak euh, Cheikh Mouhamadoul Mourtada di euh, maamu sëñ bi maanaam dama ci doon góorgóorlu loolu tax ñeme naa leen soñte yéen xale man dootuma xale góorgóorlu mooy lan teg ak tey topp ngi ndigal fexe nga lu nu kii daal lu ñu santuwul

bu ma la pizza xam nga pizza ñëpp xam pizza wala ceeb ni la mel ci bir amna fromage ak akla ak la ak la ak la nii lañ ko défé mo won le photo e pizza mo wax le lu bari mo jang le pizza waye tant que sul pizza do xam le pizza wa non le le tax ñu ñu ñu ñu wax kep ku bëgg yantabi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñu japp kenn diegesiko nemos leru. Nemos leru yonte bisasalam nemos leru seintuwa. Lon la don def, te dama don gorgolo tindigali, te Sherul Khadim amne ben système ou éducation bo xamne, c'est personnalisé. Le luta al-Quran mouwar, ma e dieglu dineko arti nasaran, lourd ou léger, lancez-vous au combat. Combat moilan diadou nafs, te sen bitilu a ron bomoar asnal khadim am ne ben ne bat bomu dan nobu nene la yarim sirol khadim nene asnal khadim la yarim manam dumu jumuk limo yala mukodior lumu don tohide sunu borom lolu tax yalla mako don nek mu nek kenn cheikhul khadim kesse ti gor yalla yi مؤكدتي توحيد بخامني موسوكو اسوسي سونو بروم اكن اكن اكن زاير اكباتين مموتاخ سونو بروم لمو ديفتي شيخ الخادم ديف ديفوكو اكن تي داما بغ ادريسي كادويتي سنغالي ينينك نيت كوباخ ناخ امغن يار بوباخ باب سنغالي امنو يار بورافيت لولو تاخ ينينك نيت باريو سنغالي ري لولو تاخ سنغالي dafa jëf ci moom di gëm que kenn ku nekk kenn looti góor yàlla yi ci sama xeet la la la feeñ est-ce que wolof bi leerwul mais Sénégal yi moom parce que dafa baax di xalaat mais naka la mën a nekk déedéet ñun ay sénégalais la ñu kese waaye Cheikhul Khadim mu nekk gën gën gën kawe ci góor yàlla yi bépp zaman bépp jamono kon ñu ñaan suñu borom. Nenbai ai complexe, ou le khalat. sur Saliou Mouné, l'intelligence est dévastatrice, alors que le ndigel, tel le pas, va dans le sens de la dictée divine. Intelligence, il y a un qui défer usine, a auto, problème mathématique, d'y résoudre ces affaires école. Dingue. Bobo plante ben ben ben pont, il y a le marteau. mais intelligence. waaye ba bëgg dem si yàlla xool rek kon nañ xool suñu xool di ko bëgg raxas di ko indi ci loxo ku baax yi ñu denkaleel la ko ñu raxasal la ko incha allah dinañ am taalibe ñuy déglu bu baax a baax ci barkal salaatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar सफर